confiance bi la président jogaat ci bopp euh, ministère bi yàlla na ci yàlla def jàmm euh, monsieur le ministre euh, mbiyatmami tànk a tank neɗɗo wiyeɗa responsabilité leydi ndi yimɓe ɓe namnoto ɗum gueɗe mumen a 2016 nga fi a indi sa budget ngane programme ribo amna ci bi jour boobu taxaw naa ma ne nañ def sans débat parce que 2012 ba léegi président de la République na mu ne day érige tous les communes rurales def ko commune te yaakaar naa bi ngeen toogee ba léegi gisuma wala dégguma commune rurale bi ngeen def ay stade Pape Seydou Ndiang ko wax na ko sànq naruma ci woon jaaraat waaye li gën a baax ci ànd mooy ku mës baxal ku mësu dara parce que su ngeen koolee fi ngeen ay def fi ñu doon def fi ñu doon def ba tey te président Macky laaj parce que dañ leen dénk alalu réew mi te ñun ci réew mi lañ bokk a soxla yàlla def na PMDL jox nañu survation dañu tabak state defar defar nañ miir bi bari na ay maire yoo xam ne PMDL wala foo de concours la ñuy jël def seen stade surtout commune monde rural yi bon war ngeen ñu jàppale ñu am ay tente ci foofu ci stade yi parce que nag ay koo xam ne commencé na am na lu mu commencé bokkul ak koo xam ne amagul dara parce que commune rurale yi comme am na commune yoo xam ne amuñ benn recette amuñu un franc bu dul lu état joxe kooku bu buggee am ay ay ay lim def foofu investir foofu dana métti ci moom xaw ma nag li indi loolu dama koy laaj. ba tey indi nga ko fii nga ne 2000 ribo programme bi am na ci ba tey déggaguñ gisaguñ loolu moo tax ma ne tey bariwum yaakaar naa bi nga toogee ci bopp ministère bi léegi 2017 laa fi nekk député assemblée nationale mosuma taxaw wax ci sa budget te bu ma ñëwee damay wax nañ def sans débat loolu lay proposé te loolu li taxoon ñu koy def nag mooy dañoo bokk mbir mi dañ ciy bokk. sport bu Dakar bi ak bu Koungheul bi ak bu Ribo bi ak bu Tamba bi ay yem Sénégal Macky Sall dafa ñëpp nañ yem mairie Yoff ak mairie Ribo ay yem mairie Dakar ak mairie Kafountine ay yem bon li am solo mooy ngeen bàyyi a à monde rural bi parce que président bu buggee am résultat boo xam ne soxla naa ko yéen ko ci mën a jàppale parce que bu jëlee def tous les communes def leen commune yéen ngeen ñëw lépp loo xam ne commune rurale bokkul ci budget yi duñ leen ci gis wax dëggam yàlla loolu dafa am nu muy demee te ñu nit dañoo bokk ci mbir mi nag dañ ci waaya war a nag même buñ ci lekkul itam nañ ci oora waaye su fekkee meew bi mu ngi fa cere bi mu ngi fa te ñun ñooy rat ñun ñooy dubb ñun ñooy togg te duñ ci am bu yàggee ñu kàpp ci suuf te bëgguñu ko soxla nañu ñu am ci man nag duma dem ci benn ministère di la ñaan lu dul askan bi benn directeur du ma dem ci yow di la ñaan lu dul sama askan li ma intéressé mooy askan bi askan bi moo ma fi indi te loolu moo intéressé Macky Sall moo leen intéressé asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu merci